ah d' accord. waaw dama bëggoon nga reveniraat ci la li la arrivé démb. ah. dama bi démb. agression bi démb ay kii la ay dama yore sama oto. Uh-huh. bon ñaari gars yore moto dab ma. di fëgg oto bi vers dix-huit heures ah. Uh-huh. waaw moom mi fëgg fëgg fëgg oto bi. Uh-huh. benn instant après bi ma nanguwul taxaw na ñu dem ba ci rond point bi bi sama kanam waaw bi ma wàccee enquête situation bi naan lan la waaye ci la ma nag quoi même mooy toog sama loxo bi ci loxo bi nee bon ñu ñëwaat commencé ma agressé nit ñi daw ñëw àtte bon ma continué ak comme foofu seerul sama kër ma ñëw ba sama kër nag dañu may xaaraat foofu foofu lañ ma songee nag dóor ma benn brique sama bopp bi si la tojee nañ ko sax moom loolu ak euh, avant nit ñi di ñëw aussi dóor nañ la. ok Massa. donc si ni kenn ki sax jàpp nañ ko. jàpp nañ ko on a ah. entendu a entendu que kenn ki yaayam ñoo ñaar ñi sax si ah. oto. maa ngi toj sama paa bi taw. ñoom ñaar ñi seen maman responsabilité ban parti. waaw PDS PDS. PDS waaw. léegi yow loo mujjee def da ngaa porter plainte. waaw bien sûr. bien sûr. loo am pour wax gannaaw li nga dund lii lu mu métti lii. bon c'est c'est c'est vraiment y a pas de qualificatif quoi c'est vraiment abject. Oui, j'ai une incapacité de 45, de 35, de 15 jours dimanche. Voilà. nga nekk responsable politique toog ci département Pikine bon bon say parti euh, de compte je sais pas wala jalousie wala boog mu ne y a des personnes qui danoon présence ici à nous en tant que recrue des valeurs. Peut-être a ça, on ne sait pas. De toutes les façons, la justice est en son travail. Maintenant, on verra. la, la suite pour cette affaire bon, ce sera à la justice de, de définir le livre à cela. Ok, merci mmh. pour ces